this week on Conjure Night Live. Conjure Night Live with guest Flex. Yeah? Showing you part of the nightlife of the Gambia from Tom 50's album release. And the premiere of the Hand of Fate movie. Uh, we're going to have a good show for sure. Thank you, Sabres. I'm not message. This is the beginning. Let's see where we can take it. The hottest show on TV. Watch it online at Banjo Night Live. The pump. Banjo Night Live Sundays 10:30 p.m. Thank you. asalaamaaleykum képp ko xam ne mu ngi seetaan am di leen nuyu ku si nekk seen tur ak seen santa man la seen xarit di seen soppe di seen doom Aida Bidwell mbow indi leen seen favorite bi tudda Banjul night life di kontaan si ñi nga xam ne yéen di seetaan TV show bi saa su nekk am di leen wax ne rek ñoo leen digoon am nu TV show bi di gën a rek dinañ indil ay affaire yu safa safa saf biir TV show bi nii moo taxoon ñu indi ay yu biir TV show bi am tey épisode bi dina xaw a comme nuñ daan faral di suñ BNL yi am moo taxoon ñu génn si biti di ñi nga BNL yi ñu ngi am bu to the ward on the streets waaye balaa ñuy gën a waxtaan si fi segment suñ def am comme nuñ ko waxee woon rek TV show bi nu moo gën a demee dinañ gën a yokk ay affaire si biir TV show bi moo taxoon suñ fans yi mun nañ leen a fay uh, moo tax gis nañ uh, messages yu rafet yoo xam ne ñu ñu ko doon seen si suñ Facebook page bi si suñ um, website bi ak also si suñ Twitter page bi moo taxoon tey nag dinañ read um, few messages yi nga xam ne jotoon nañ ko every week inshallah, allah dinañ buddi def loolu noonu si ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a suñ fansi ngeen xam ñun faale nañ leen nañ yéen bu fi ngeen ko la rek lañ soxla support bi ak love bi appreciate nañ everything bala dem rek bëgg read force um, Twitter message buñ am uh, Twitter message bii nii nag from Ba um, um, first time of watching uh, Night Live I must say uh, I loved the episodes congrats Black and Ida Culture Thank you so very much Modoubaye um, Ben and uh, kii mu ngi tudda uh, Tijan Bah uh, mu Nightlife episode 19 has to be the greatest episode yet Ida Bidwell is very professional and I hope she gets her proper voice back as you can see I am so good suma voice it's perfect right now thank you so very much kii nii am um, Tika Turner la tudda Mune banyul Banjul Nightlife episode 18 on point felt like I was in Jollof this December keep it up great show this is the best episode so far congrats oh thank you so very much um, um, beneen bii nii nag is Carter uh, moo ko seen mu ne Banjul Nightlife watching episode 9 on YouTube I love your show Nancy is fabulous comedian thank you so very much and last word be from Twitter, um, Yande Dizzy, more send a message Winnie. When I Life, I'm so addicted to this show and uh, you very sweet Ida. Wow. What can I say? Thank you so very much. Uh, xam naa ne nag nekk nii am kind of emotional because uh, lii dafa nekk loo xam ne dafa neex si biir xol ngay def dara nga nekk young Gambian and then nit ñi appreciate li nga def loolu lu neex la si biir xol ma leen a wax jërëjën jëf aw ma seen fay um, lu dul yéen itam di leen ñaanal rek fépp foo xam yéen a fa yàlla jàppale leen fa um, def leen si jaama lépp loo xam ne dream ngeen ko aim ngeen ko rek yàlla achieval leen lépp loo xam ne bugg ngeen ko si aduna bii nii fii fu mu nekk nii nag duñ def dara lu dul kontaan si gars yi Jaliba comme ni ngeen gisee place bi macha allah man saa su nekk suma wax dama see boole macha allah bi ko suñ. suñ suñ religion moo ko moo ko santaane but then di kontaan si ñoom rek parce que saa su nekk fii la ñoo ñëw def suñ show bii nii place bi nice na trop di kontaan si staff yi Jaliba di kontaan si Marley moom mi nga xam jox nañu opportunity bi pour ñuy def fii TV show bi di kontaan si Omar du ma leen fàtte yéen yi nga xam ne yéen seen kër di seetaan yéen sa su nekk rek yéen a ngi toog si seen télé yi gulu foofu noonu di yàkkamti Banjul night life bi door gis nañ daal li ngeen jàppee show bi am uh, yooyu ñooy messages yi receive from um, Twitter page Twitter page bi um, biir show bi Inshallah, di dinañ read yeneen messages yoo xam ne jot nañ ko si suñ Facebook page bi ak also suñ website bi waaye nañ am a short break uh, suñ jógee si short break boobu incha allah dinañ génnee um, event yi tam 50 comme niñ ko waxee Banjul night life dañ fi nekk rek di jàppale képp koo xam ne yaa ngi just door wala yaa ngi nekk bir um entertainment industry bi nañ dem fépp foo xam um nit ñi war nañoo xam si lan la gaay nekk di yëngu moo taxoon xam naa si night life bi da ngeen dee gis artiste bi xewle dañoo dem cover ko si BNL bi si ko defee nit ñi gën a xam rek ñoom si lan la gaay yi nekk di yëngu when it comes to music am ñu dem seetlu seeti ji woon tam 50 rek ak artistes yi nga xam ne pafoo nañ foofu noonu nañ am a short break ñu seetaan vidéo boobu noonu suñ dellu see fii nii rek waxtaan bi gën a asalaamaaleykum waa Gambie ñu ngi fii nii ci Alliance Franco kon sa kon que saa su nekk nuñ ko dee defee rek artiste bu xew la ñu ñëw uyu si la tey nag Tamfiti moo ote moom nga xam ne dafa launch album am bi fii ci Alliance Franco waa Gambie fans am ñëpp ñëw fii nii pour support ko am fu mu ni nii right now dinañ bàyyangu mbir bi rek dugg si biir si ko defee